fi xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy koor gi. Seexu Taaboy koor gi Seexu eh, kii xam nga dem damaa wóor abal ma daal ma daal si fee. après eh, kii nee na yow kii moo wax nee na su da ci lu baax. del jaay te sa ngañ ngañ ji bu waxee sa kanam gi mel ne fur na jàmbar del jaay fii dara desatu fi. way ma tey way ma tey. xool xool boo jàddee nii nii nga juba ba si kaw ba si si kaw ba juba. am réew ci mim réew. eh. ka kañ ma fay. man. jël jël jël li so baaxul li so li so baaxul.